tay ji politique xaju fi dafa rew mi rek fi xaj ñu dem ba ci biir sax mom mu dem France 24 ne sax ordre na état d'urgence bima def dina ko yok xam nga mu joggé 6 h dem 18 h ñu dem ba ci biir mom ay xalé yu juk ak ay kër diine ne ah li kat attanuñu ko mu ne mom dafa déglu askanam mu reculer ñu gis sax ba ñu dem ba ci biir mu enseignant yi mu delloo len ne da ngeen jàngale ji mu yàgg mu ne déedéet depp len bu ngeen jàngale ji lool yépp jamono ji nga xam nit ñi ñi ngi ciy commencé dee dëgg ci feebar bi jamono ji nga xam ne feebar bi mu ngi commencé di développé wu ci réew mi moom jamono jooju mu ne léegi sax bàyyi leen mu ngi ubbi frontière yeeg yooyu ñu ne waaye ñu seetlu ne si jamono jooju yaa ngi dégg yoo xam ne ñoom dafa mel ni dañuy profité ci état d'urgence bi pour di jàllale loo xam ne politique rek ko tax a jóg gis nga affaire honoraria bi maanaam bu ñu la falee ba folli la ci foo institution mel ni CSE dañ lay jox boo xam ne day mel ni fa nekk di liggéey te ci alalu réew mi leen nga dégg si jamono jooju ne yaa ngi dégg ñu ne euh, littoral bi dégg nga coow li fa nekk suuf sëpp ñoo ngi koy ci caxaree naa ci dell si léegi loolu yëpp nag tax na ba Y'en a ne dafa mel ni ñiy waxatuma sax tonnement waaye freestyle la ñuy def maanaam dañuy xëy rek lu leen dégg rek def ko gisuñu tuñu benn stratégie bu leer ci affaire Covid bi rax ci dolli ceeb bi ak dund bi nga xam ne dañoo dañ koy dafa mel ni sénégalais yi sendrim dërëm dërëm yu ñu joko jox ko état parce que sénégalais yi ñoo cotisé bu ko nit ñi fàtte jox ko mu toll presque ci mille milliards milliards ñu ko jox ko ko mu war ko askan bi dafa mel ni dafa jaar fanen waaye askan bi gisuko ko jotu ko wala ku jot ñetti kilo genn wàll libre ngay jot ku waroon a jot fukki litre jot ay walat ci diwlin loolu yëpp nag mu tax ne sénégalais yi bu bu loolu bu mu tax ngeen bàyyi seen bopp ba bi amut état bi xëy na amatuñ ci moom confiance ndax war na ne mënuñu aar wala bu taxu ko jóg waaye ñun nañ aar suñu bopp ku nekk takk sa masque ni nga mën a moytoo nga moytu ko fexe ba yow nga dakkal feebar bu ko yóbbu sa kër. benn ñaaral bi nag Y'en a marre ne ci yeneen pàcc yi lu mel ni suuf si ndax tey jii gis nga li xew ci littoral bi dafa nekk rek lu meññi loo xam ne boo demee bépp tund ci réew mi dafa gën a métti demal ronq demal njiit waaye demal fii ci Saloum. day gis ne am na ay maire yoo xam ne comme maire Djilor bi def na sax falsifié na PV wu conseil municipal pour jox boppam lu toll ci ay vingt hectares nga dem boo demee fu mel ni Bangaleer dañ jël suuf sa jox ko benn tubaab boo xam ne te suuf sañ ko jox fa la jigéen ñi doon nappee yoxos ak ay xooru paañ ñu dundee moom mu jël ko clôture kenn mënatu cee jot donc li ñu gis fii Dakar meññeet la rek ci li xew ci biir réew mi dëgg-dëgg te maire yi ànd ci ak yenn préfet yi ak yenn sous préfet yi ak yenn magistrat yi ñuy saax-saaxee alal réew mi ñu ne Macky Sall bu fekkee ne dafa bugg rek aar askan bi ba tax ne bu askan bi ko àddoo mu may ko nopp ba ndax pression populaire bi moo tax mu dellu ginnaaw ci yenn ci yenn ci yenn décision yi mu jëloon. lu tax bañ keroog waxee ci affaire Petro-Tim lu tax keroog nañ ko nee na baax na euh, lu tax ci affaire Petro-Tim bi dellu ci ginnaaw ndaxte bañ ko fi sóobee Aliou Sall dafa démissionné CSE mais ba ba léegi tigga tojut mu jut fenn. lu tax même dossier Akilee bi nga xam ne mu ngi ciy profito ne léegi tey parce que ay sénégalais rek a fa nekk lu tax def ko ci dossier tubaab yu mel ni TER ñu jël junni milliards def ko ci saxaar goo xam ne doxut tàkkut ma nga fa di poussière suñu alal di ca saaw lu tax dossier yooyu nag defu ci dara littoral bi nga xam ne tefes gi nga xam ne cala la askan di noyee ndax dañoo foog ne yëfu borom alal déedéet dakaar euh, carburant bu ñu fiy jaay baaxut oto yu bëri nañ nit ñi amuñu fu ñu noyyee boo ci buggee dolli nga nga tëj tefes gi ba nit ñi amatuñu fu ñu nooyee lu tax Macky Sall jugu dakkal loolu bu fekkee ne askan bi rek ko tax a waaye dafa mel ni Covid bi da ciy profité pour di def lu ko naka sujut noonu moo tax Y'en a marre askan bi beneen yoon ne leen ñu ànd ak société civile bi yëpp ak bépp acteur pour ñu fexe ba nga xam ne Macky lu mu naar profité ci Covid bi ñun ñu jug jaamaarloo ak moom ba mu delloo askan bi li mu moom. Ah, uh, jaamaarloo bi dañ ne stratégie bi du lu ñu Y'en a marre di définir moom kenn daf ci ànd. ak société civile bi ay bokk ak ñoom noo ñoom ñëpp ñu ànd ci fexe ba mu wax nañ sax ne xam nga tey ku Karim man Fadel Baro. d'accord ak wax d'accord ak moom ci mu wax sax mun naa ak moom li wax waaye que ko téye ci kaso gi mu feebar nga parce que dafa ci nga provisoire te ñëpp xam Karim dafa dal nañ ko ci ak ay Luc Nicolas yooyu yëpp dinañ ci wax waxuma waxu Luc de ndax man dama ne Karim dafa wax waaye menacé wut alal réew mi waaye ku mel ni bu gazali alal réew mi la naxasaay kooku mënuñu ko bàyyi bàyyi Karim mi nga xam ne dëgg-dëgg dafa feebar ci biir kaso gi atta ànduñu ak moom d' accord ak moom ci lu mu wax yooyu laa xam ne tey nañ ko fàttali aussi askan bi ne leen réew citoyenneté kese ko mën régler ñun bu jugut buñ xaar ci ñii ñu aar ñu buñ xaar ci ñu sàmmal ñu suñu moomeel donc ñun ñoo mën a sàmm suñu moomeel dinañ ci ànd ak ñëpp taxaw ci taxawaay bu ñu ci war a taxaw ba lii jóge fi. mu ngi mel ni président Macky Sall dafa tiital nit ñi ba nit ñi tiit ba pare après mu jaar si ginnaaw bëgg a yóbbu affaire bi. nu mu ko doxalee sax dafa dem ba mu niru ne nit ñi sax gëmatuñ ne Covid am na ci dëkk bi te dëgg-dëgg Covid mi ngi ci dëkk bi. parce que moom moo sappe confiance moo nërmeelal confiance bi amoon ci diggante état bi ak doomu aadama yi xam nga loolu nag bu amee askan moom mooy jëlal boppam. xam ne boo xëlee xë boo tëbee dal ci xalu safara da ngay xam ne desane la waneen tëb waneen tëb boobu nag stratégie boobu ñëpp ci àndandoor ñu jugandoor ñu defandoor du nekk Y'en a kese. est-ce que euh, xam jàngoro bi ñu ko ñu ko moom xëy na xam nga maa ngi koy am habitude di wax ne virus bu diggee ci réew doo ko jëlal stratégie boo xamut virus bi nan lay comporté woo ci réew mi. doo dem copier ci chinois yi doo dem copier ci français yi doo dem copier ci japonais yi da ngay xaar ba xam nan lay comporté woo ci réew mi surtout que réew moomu ay ndaw a ca ëpp. surtout ca réew moomu liñ traversé ci ay pandémie xëy na beneen askan traversé wu ko il faut nga ànd ak dal xëy na tey la door a comprendre waaye nañ ko doxalee dafay mel ni dañuy të dañuy tëñëx tëñëxi rek te loolu baaxul ci réew mi. jërëjëf Badara ngeen jëf